suñu campagne yi ñu koy ubbee mooy dañuy dem ci këru diine yi dem ci jumaa yi waxtaan ak kilifa diine yi tàllal leen suñu loxo ñu ñaanal ñu ñu ñaanal ñu pour ñu am ndam ndam loo xam day weesu suñu ndort ndax investir nañu fi ci département bi sur la liste départementale nous avons l'honorable député Ndiagne Diop nous avons Diarry Diène sur la liste nationale nous avons Seydou Diouf nous avons Souleymane Ndoye nous avons aussi des suppléants et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au soir du 31, euh, suñu objectif est de ba ngoonu 31 juillet ñu am ndam ñu nous département fisc, gagné nañ ko gagné, nous ñu war ko gagné mooy ki ñu le président Macky Sall xam ngeen ni jamono bi ñu nekk jamono crise bu tar la ci bi première crise bi nga duré deux ans depuis 2020 c'est le Covid bi avons waaw wàññeeku na nag mais des na nous bi moy li am Ukraine ak Russie mo am ay conséquences yu yu doy ci conséquences na dundu bi ndax blé bi ñu daan euh, mburu fofu lañ koy jëlé maïs bi nga xamni la muy volaille bi muy nak yi muy pétrole bi nga également fu guerre ci bi mondial bi na suñu économie ndax Seydou Diouf ngi ni moom moo commission finance bu assemblée xamna ni biñu défar defar suñu budget ñi ko teunkon ci 75 dollars dollars baril pétrole brut tay ji flambé na dem na ba am ay pic de 130 dollars motax ba président Macky Sall décidé ni dinañu jël ci budget wu Sénégal du mat juroomi témer milliards dugal ko ci biir Sénélec pour njëgu courant bi mëna a oyof ci ñi koy fay dund bi dugal nañ ci téeméeri milliards ak juróom fuk ak juroom ñaar ak yeneen mesure yoo xam ne jël nañ ko loolu nag moo tax ba président dem fële ci Ukraine ca Russie toog ak Vladimir Poutine ñaan ko ñu bàyyi guerre bi wala boog en attendant ñu koy bàyyi ñu ubbi port Odessa pour que blé beeg engrais beeg maïs bi mën a dem. ci contexte boobu nag ci la ñuy demee élection muy 31 bii di ñëw élection yi dafa doon élection yu am solo pour Sénégal ndax stabilité Sénégal moo nekk en jeu xam ngeen suñu dëkk amna pétrole amna gaz fu am pétrole am gaz day am yeneen puissance yu aw jéem am ci suuf wut ñu ñu lëkkalool pour déstabiliser dëkk bi mën a jariñoo pétrole ak gaz boobu. te xam ngeen ni pétrole bi ak gaz bi président Macky Sall lim ci décidé mooy daf ko waxtaanee ba pare ak majorité ak opposition ak institution yëpp ak société civile ba xam nañu la muy jur ëllëg naka lañ koy utiliser. donc loolu rek war na tax ba ñun ñëpp ñu takku bokk ndey bokk baay pour fexe ba le 31 juillet ñu jox majorité absolue au président Macky Sall loolu nag la ñu wut si woon ñaan ci fi ñu jaar yëpp te fi ñu jaar yëpp wax dëgg yàlla dalal nañ suñu xel ñaanal nañ ñu ñaanal président Macky Sall mu am ndam bu ngone ci guddiga bu 31 juillet jotee. lool nak li tax ñu gën ci am yaakaar moy comme ni ngeen ko gissé Rufisque nek nañu ben té du ay wax rek lu ñuy depuis très longtemps tous les responsables gis ngeen tay kenn manqué wul. Moham, xam ñi nga xam ni ñom lañu tab mo xam ñi nga xam tabul tabbu luñ leen ñu bok ci mouvance présidentielle donc lolu lu ñuy la te yeen gis tegal ngeen ci seen bëtt ba tax am nañ yaakar bu baax am nañ yaqin ni le 31 inshallah dañu amdam. am ndam té ndam lolu don ndamul teungeet don ndamul Sénégal don ndamul président Macky Sall ñun suñu liggéey du saga du xarab ndax euh, ñun dañu bok ci camp bo xamni ni camp wu progrès la camp wu temps wu liggéey gis ngeen tali gis ngeen hôpitaux yi gis ngeen li ñu def ci walu ndox mi ci walu mbay mi ci walu cham gi gis ngeen li ñu def ci wàllu jang bi gis ngeen au plan social bu yagul ñeent fukki milliards ak ñet cash transfert ñi neew doole yépp jot 80000 vingt mille francs am Sénégal ak yenen yo xamni mën nañ ko fay wax donc ñun ci camp bobu lañu bok amna am na camp bo xamni seen wax moy nañu tal dëkk bi nañu saga nit ñi nañu wax lu ñaaw nañu wax lu bonne na ñuy tëgg ay dem nañ ci sax bay bay sabaru ak ay kii léegi ak ak ay kubéeri cin ma ni waaw donc loolu ñun ñun ñun ñun nekkuñu ci loolu Sénégal yi nag dofuñu ñu ngi commencé ràññee nag te xam nañ ni ràññee bu baax bi mooy tànneefu benn bokk yaakaar te loolu incha allah dinañ ko def le en deux 31 juillet 2022